ma mbay ma Madiaga mhm. dafa taxaw seddal la lii mu la wax waaw waaw doom bi mbott ndox du ko rey déedéet doom bi bëri jàngil bëri yàgg yàgg des na la ñam waaw ñam nañ ko tey dañ lay ñam pap ah, dellu fa nga ne woon <laughs> dafa am lu mu fàtte sax dëgg la daf ne moom moo ñu yar ndax man ak rakkam hmm. bala ñu daan ànd fu ñu mës a jëm ñu daan ànd mais yàlla leen <laughs> moom man bu ma ko xoolee. Mm. moom loolu laay gis. ndeysaan loolu mu wax yëpp am na koo xamante ni gis na moom. ndeysaan oh, doo fa yegg. waaw man ak ak ñu doon ànd. mu yar ma nag. ndeysaan waaw te li mu wax nii. Mm-hmm. loolu moo ne ci moom. Mm-hmm. ndeysaan. boo jëw ci kanamam. boo wax ci jàmbur. déedéet lazim. te li may wax nii. Mm. xam nga dafa am wax lu am solo lu mu wax. Mm-hmm. parce que nit ki wax yàlla muy sa seede. waaw wax boobu amul solo. te loo wax fi dëgg waxaat. dëgg la Pape. loo wax ci wax ci kanam kanamam. waxtu du ko raw. ndeysaan barke leeru laa ilaaha illa nit nag apparence dafay nax nit souvent. Mm. parce que boo xoolee. Mm-hmm. maanaam. alil bi muy dawee ci télé bi. Mm-hmm. boo basé ci loolu rek. daf lay mm-hmm. nax. dëgg la ngay xam ne kii xëy na loolu liggéey bi la. dëgg la kenn gënu ko xol. Mm-hmm. kenn gënu ko rafet xol ko seetlu xol. dëgg la te ci waxam ba mu jeex danga ci ciy sentir audace. audace. ci sentir audace da ngay xam ne kii audace lay waxee. te nag jamono bi boo ci amul audace. doo fay kenn du la gis. dëgg la mbay foofu la taxaw. mais moom daf ñoo yar. ndeysaan. mag Balla dañ daan ànd dañ daan jékki dañ daan romb mag bàll ñu toog seeraas di lekk suñu yàpp mm. ah booy yéen a ngi ndekki waaw mm-hmm. <laughs> ah, kon ni donc moom moo ñu yàlla sant yàlla sant yàlla kon Pape dellul fa nga newoon tubaarkàlla